xayral baraaya yow gën gi mindeef zuttal balaaya dañal nga balaa yi lidil xataaya ñel borom ñaawteef ga rumta sàkku nga najaa ii sama mucc anta yow alkarimu yaay aji tedd ji ana man alxadimu may aji liggéey udiimu danaa sax tëxran diiru jamono jamono fii ka si yow sanaa ii di la tagg dinaa saxal samay tagg ci yow diiru jamono rumtu sàkku naa imtidaaxa tagg ay tagg yoo xam ne yootuy danañ joxe falaaxa texe yekk fii danañ fekk iftidaaxa toroxte maal ana i ànd ak ay coona sàkku naa tagg la tagg yoo xam ne day maye texe di fekk it toroxte di fekk coona inni man bi ma samay tagg yi aayantu ribxi yi ak sama tono xat an si lu wér si lu dog wandu ju xi ak sama fajub aajo muy sama réussite maal binaa i ànd ak sama tabaxu mbir laakin li fi nekk ajastu lot naa amma sa la nga xamante ni iltamastu sàkku naa ko wa ma madaxtu te tagguma kan nu balaa i kem way dese yi xaara ñiis na midaadi sama daa xaara گلمنا فؤادي سما خول عن مدح ستك هادي اجي جوبل جي للبدلاء نيل بدلاي